Colle dafa teggi natam jox jëkkëram Colle dafa teggi natam jox jëkkëram fay ci courant fay ci luyaas fay ci ndox faju ci raja dafa réew a réew a réew a réew a réew a réew ba nof ber li mu def jëndi ñaari xaram jox gawsu xëy benn ba dee mu jindi bayam jaay ba ca nga jàllaabewu nii rek mel nam julli lii mooy lan hmm, salbayee ca kankurang ba sax daw raw lii mooy solug lan te ba nee naa la ba tey gëw su bàyyil di nelaw ba yenn heure yi naroo am jom góor da ngay jéem a fas jom am jom ci sa bopp ah waaye di nelaw nelaw nelaw nelaw ba naaj bi tàng jër sa kaw loolu mooy lan lii mooy lan ah te mu ngi ma bëggoon naa nu waxtaan tuuti sa sa sa mbaañ dem na marché de. waaw hmm. moo moo rajaxaan waaw kay yow eh, maanaam yow kii bi maanaam koñ bi nii walla ruq yi ruqaat yi nii déggoo dara dara dara rek lu wax maanaam jëm ci man. maanaam lu ma ah. ma la xamal lu bëri sax ci koñ laa wax ba pare koñ bi dara dara. boo déggu rek nee ma déggu ma. lu ma dégg kañ. loo dégg mooy la. dégg naa ne yaay Seeri Kolle. maay Seeri Kolle. waaw ah. di bàyyi raja. Ah. di nijaay góos. Ah. Hmm? bokk ak moom ndey ak baay. xam naa loolu ci yow. loolu ma ne picc yi sax a koy sab loolu ñëpp a ko xam loolu biti la mag xale yi naan biti la fanaan loolu biti la fanaan biddanti na yàgg na. li may wax kay mooy man maanaam man ci samay jëf-jëf ak ci samay def-def samay ruq-ruq samay dugg ak samay génn maanaam samay làqarti samay laxas ak samay business man personnellement laa wax ndax yow xamal nga ma ci dara wala déggaloo ma ci dara yow. xamal naa la ci dara kay. waaw hmm. oh, waaye dama koy bañ a wax kër gi tas de wala mu wax ko nga dóor ma. dóori lan xanaa du may laaj nan la di di laajee ñu tontu ko muy dóore mel na dof man damaa dof bay dóore. dangaa dégg ni damay dóore wala nga gis ku ma sa a dóor yow kay dama laa laaj xamal nga ma man kay yow kay nee nga xamal nga ma da wax ma loo ma xamal ma xamal waxal li ma xamal. moo xam ne denc mag boo ko gone la xartee kat musiba fekk. mani mani mani denc mag ak denc gone ci yam dëgg moom puso bu wadd la rek gone day for mag day for yow kay wax loo ma xamal waxal dégg lan. xale bu mool bi dëkk si angalu koñ bële. xale bu lan. xale bu mool bi c'est ça. loo dégg ci sa. attention waxoon bu ma waxee doo ma dóor rek. ma ni dóoruma la damay laaj pour leerlu. Hmm? wax ma loo ci dégg. dégg naa ci lu bëri sax. comme lan ak lan lan lan li nga laa bëgg dégg tey li nga bëgg dégg lépp tout tout tout tout wax ma lépp. c'est que nag tons da ngaa dëgër fit nag yow ak sa xel gu leer bu si doxal hmm? li nga dëpp këppatal sama yumpaañ yëpp te xamul si dara ba jamonoy tey loolu rek moom si yem tons dëgër nga fit. yow nga xam ne yoroo dara yoroo lu suukar màdd yow ataaya boo tegee lawal bu sama yumpaañ wàccul doo ko suukar nga dugg ci xale boobu nga xam ne dafa bëgg dërëm bëgg dërëm bay bëgg dee bëgg dërëm waxuma loolu yi lépp dama ni dama ni dama dama yow loolu yi foo ko déggee ah, yow loolu kon yow ndekete li nga ne ci kër gi di dof dof lu yëpp ka man ni man di loo ko bandi bandi loo ko nepp nebbal man ma jàppe woon la dof ndekete man man man mii maay dof bi te yow yaay médecin bi ma war a faj comprimé ah. ah. ba sa sa téléphone yaa ngi jël bind jël turu sosa bi nga bind si coxeur. bind ci lan. coxeur ku yow naan nga coxeur boobu. mun ma xam ne coxeur bay sosa moom. naan naa loolu bu baax a baax mais sama mpaañ kañ nga dëpp këppatal mais man si naa del bi yëpp nu mu demee de say mpaañ da nga mës ngaa toog fenn dégg mu tudd ko mhm. wala mu am mu ñaaw ci xalaat tuuti rek sama mpaañ day nit xalaat gee bëri rek mais xel ba neexul hmm. kon xam nga ne xamu ci dara xale bi dafa mool tons da nga dëgër fit sax xale bee mool am ji nga dënne yow xale bu rombee sa koñ bi ñëppay apprécier man mii sax mooy loolu kon xool ko ko de bu baax sax si sa barke laa si barkeeloo te te damay nëb doon nëbbatu waaye yàgg naa ak moom de man xam naa loolu waaw yow da noo mës gis wala nga mës noo seen fenn. Hmm. léegi boo leen dem si jardin ba da ngeen may romb foofu sama gars yi mais man maa lay nëbbatu rek bañ nga gis ma waaye nag bu ko saw yimpaañ foree fenn ma dégg fenn mu naan sa bala naan sasa ba cay àgg ca jeneen saaja danaa la sàppa lappee ca biti dégg ma bu ma ko dégg de tëj ko neen mut bu ban boobu la may yëg ca moom maag yàlla képp ko xam dégg mu ne la takkal say jaljali te tëdd rek sama yumpaañ du dégg dara pour man rek wala dafa teggi natam jox jëkkëram fay jug fay ci luyaas fay ci ndox faju ci raja dafa réew a réew a réew a réew a réew a réew ba nof ah ndijaay tabaski bi egseeti na de ah loolu ngay wax ah mi ngi mel ni tey ci man de ndijaay ki kay ba mu yegg see daaw xar manqué ñu ngi di tabaski xari jigéen yi ah ren mu ñëw tombeeg corona bi feebar bi kay moom dëkk bi xar jafe xar seer frontière yi tëj tubaarkàll moom daal doy na waar. doy na waar dëkk bi war nañ ko tuural eh, man sama téléphone baa ngay sonné di. dëkk bi war nañ tuural raxas ko moom set. am na eh, fi dugg eh, fu ma jëm ak kuy wooteeti téléphone bi li muy yi bëri na. sama coxeur ba de la waaye du ko wuyu <laughs> dafa yebaate kër wuyu ko ne ko yeneen sama nag. nga wuyu coxeur. waaw coxeur la coxeur. xam nga ah. comme allo per laa soxla ne ko mu jël téléphone bi. waaw waaw moom de dafa nekkoon si wanag gi. maa ngi nii ci buntu kër gi bu ko jëlul ma dugg paas ma per. waaw waaw boo ko bëgg ba mu ngi nii sax mu ngi nee di dugg yow doog génn ah nga jël appel bi. eh mu ne nga jël appel bi c'est urgent. c'est urgent ci lan. ah wuyul di jaay wuyul xam lu mu lay doy. allo per génn génnal maa ngi nii ci bit génnal laa wax wala ma dugg. ah waaw mu ne ah ah ah loolu de xéwal la ah loolu de alhamdulilah rabbil alamin loolu de xéwal la ah alhamdulilah tubaarkàlla tubaarkàlla addi eh, crédit ba waat eh, bi eh, crédit crédit ba dagg na di xaara xaara ma daw gaa wut crédit la mi li may wax kay neel alhamdulilah alhamdulilah xaara ma daw wut crédit woo ko dawal dawal liggéey dawal woy ma liggéey te kaay kaay yoon di góosu mu dem yow yoon di góosu rek alhamdulilahi rabbil alamina ha lii moo tax liggéey boo def dañ ci am ful ak fayda boobu ba tey mi ngi lay woon naan neuf mille neuf la di la testé waaye ba ma xamee ne xam sa njëg xam sa poids fay na la prix bu baax très bien yal na la yàlla kum nga commencé si jàmm alhamdulilah rabbil alamina goosu goosu soo may gis may rafet ji di ñaana seen liggéey da nga dul wax amin ah goosu yow mënoo bàyyi bu nit di waxal goosu nit ki bu amee bànneex di mbette nga ànd ak moom goosu nga nekk ci suuf di ngañam ngañami ngañami ngañam ba kañ yow lu tax nga bon nit nag bu lay dundal ci ñàkkam danga koy sant di ko gërëm ak di ko ah oh, alhamdulilah. li ngeen di wax ah. lan la wax. moom kay tubaarkaal la fi mu ne oto ba de. Hmm. Eh, oto ba na mu nooyee ëpp na. testé nga ko lan nga fay oto bi nooy na peinturaat nan ko monté waat nan pune gis nga ko defaraat nan lépp ba baax. kon gis nga ne nii kay moom nii nii moom. Hmm. moom xam naa suba suba. Hmm. la ma sant pour xëy fajar dem euh, euh, dem visite technique. Kole dafa teggi na tam jox jëkkëram Kole dafa teggi na tam jox jëkkëram xam naa ne da ngeen am wax na lu ñaaw loo xamante ne. xamoo lu ma la bëgg a yëg. mu ne ku ma jaxaani xëy be paase xëy waay. man doo ma les dofs de la scène vous reviennent plus fous que jamais le trio magique le trio de choc qui explose les réseaux sociaux trois véritables phénomènes les meilleurs de leur génération les maestros les plus puissants de la comédie vous reviennent dans Kër Saner. les docs de la scène les plus fous de l'espace théâtral sénégalais cey fu ñu jëm cey fu ñu jëm ak Saner ak Mbandumbe ak Saner ak Ñanku le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën a dof ci ñett ñi à suivre dans spécial Tabaski sur Sénégal 7. Diop maa ko wax maa na yow Diop kaay teemaa na yow. du ko nelaw Diop taxawal ci buntu bi. doo ko fi nelawee la kër na papa ja. wala sax balaa paa di ñëw. Mhm. nañu rey xar bi ba pare parce que jël. ban xar nga wax. Diop xar mi ko ko fi ma toj sa e eh Diop yow. wa wii ma jaamite yooyu yëpp day dudd da ngay duddooy wax ji den na yet ngi yaay den nay. jaamite bàyyi nay def waay yaa ngi may dootee yi den nay ni yaay den nay. waaw tay den nay dama koo dagg lu tax lu lekk ndugg ma ne dañoo wax. dafa gën ñu lekk ndugg moo leen gën fuuf boo ko joxee ndugg bi ma rey la. lu leer naa la wax. reyal dëgg la ma la wax rek na daal xar du lekk ndugg. dinaa ko ko jox xanaa tey bëgg a topp doo xar mi. Modou Lo quatorzième victoire Modou Lo am col la am col la am col am col la dana ko mot. daan na ma xar mi li ko dese ci dund hmm. fii trois mois hmm. su bruit duggaatee ci noppam lu bari mën na dee ko oh, balaa moo dee ñu rey ko ñu rey la yow xayam mi daa mel ni sacrifice te yee na ni ma teemaxu nii noo ko eh. ko kor joor jenge kor joor jenge moom léegi maa ngi bawoo waaw noppi leen noppi leen. sunu cosaan tan moom tan moom doy na doy na tan doy na. fi ma tëdd bu delloo sama wax ma des la nga dem. Eh! jaa taa yéen ma paan bi tan waaw. xar bi moom bu ñu ko sàngee duñ ko gaaw a dugal dañ koy bàyyi si mbedd bi waaw ñu xam ne am nañ xar kon ñëpp xam ne ñun nag am nañ xar waaw tey tabaski ren moom day day neex day day neex jàppal eh ñu sama bay dami tey habité nii damay yéene bandi yow. doxali ka tam ba ma ne ma def ma def la fi kaj tool doyul doyul doyul doyul wax bi na de wax bi ndax xay mi waaw. yow tey yaay sëyam sa yaay. Ah, ah, ah, eh, eh, eh, tat bay ma la wax bay tat bay ma. sëriñ bi sama yaay comme yoo ko def maa koy fay bu tooba yaay. Oh. tey. tey du ko mag du ko si na. monsieur ak madame. sëyam et bi nga taxaw a mu bi nga xool rek nga wax ah ka Diop ñoo Fallou Diop Fallou Diop mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi waaye xam naa bay day xam papa xam bay mu xam baax yaa ngi xaru de ne du fi yett xam bi du fi yett xar bi du fi yett xar bi lekk sa ñaawaay bi nga mel ni xar mi yow dama lay rey de ma ne xar mi day lekk xar mi rek kay am droit lekk ci biir kër gi boo leen bëggee leen lekk ngeen wuti ko xar mi day lekk. Tabaski ren gi nañ dem seeti baar Sénégal.